population dem na fële sa zone Sénégal boobu ñu naan Saliou Ciss Tribune population xamal na ni Saliou Ciss maanaam daal problème agence moo ko yóbbee tëwma bi mu am maanaam daal li nga xam ne mooy déception naka noonee xam ni Saliou Ciss si boppam jamono ji jël na vol dellu pour ci club allahu akbar moo tax Tribune population aale mu daan xamal na ni ñun zone Sénégal yi nañ jàppale kooku moo xam mooy Saliou Ciss ndax mu am club ndax ah ki nga xam ni moom muy nga xam ne ni moom mooy maanaam daal njiit Aliou Cissé ngir yàlla nañ ko jàppale ndax jour bi nga xam ne ne am talent am personnalité am dignité moo tax aada mu daane Sénégal ji moom yaakaar ne kumba am nday kumba amul nday moo fi am de ci biir population yamul foofu de ba mu jugee kër nga xam mooy Sall siis dem na fële nga xam ne mooy sa Kër maanaam daal sa Kër Massar nga xam ni ñoo fay jaay maanaam daal mbirum téléphone jamono jiñ toll nii naqara leen dëddu de moo taxit de maanaam daal xam na ni motukaay yi si jël moom war nañ koo dooli naka noonee ci biir population ba njeexantal tribune population nee na ñi nga xam ne ñoo fay jaay maanaam daal ñuy lal si suuf di jaay ay yére tribune population xamal na leen jamono ji ñoom ñooy doj dëpp bi moo taxit ñoo ngi ñaan Macky Sall pour mu saafara aajo yi tribune population nee na suñu nekk loolu lambaay dina ñaaw de te lambaay warul ñaaw fële ca Kër Massar Kër Massar tribune population nee na ba mu jugee Kër Massar dem na fële nga xam ne ni mooy sa Sonko de allah akbar tribune population xamal na ni Sonko jamono ji maanaam daal tuuma boobu mooy 9 milliards yooyee mujj na see sedde waaye nag ah viol boobu ba tey de tribune population xamal na ni ñun Sénégal gi xam naa ni moom suñu lii nga xam ne si ñàgg la jëm ñu ko seetaan ndax Sonko ak kii nga xam mooy Macky Sall man damay laaj kese kepp est-ce que lii gars du règlement de compte ndax chaque jour Sonko Adji Sarr Sonko Macky Sall ngir yàlla même Sonko nañ ko bàyyi ma nag day jeex tribune population dem na ci population askanu Sénégal waa ñun fan lañ jëm tribune population xam ne ñun askanu Sénégal démb na rafetluñ ko tey rafetluñ ko suba nee na nag Sonko lu mu bon bon bon nawle la lu mu bon bon bon sénégalais la moo tax ma naan sénégal gi Allé Moulana xam naa ni lii su si kilifa yi waxul ak aada yi Allé Moulana sénégal day tax ay waay yàlla wasalaam nañ ko tëj ba leen dëg jàmm